mbokki daara ji ngi dellu si waat di leen nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu baaxoo di defee jamono bu nekk di jiital ci nuyu bi sëriñu daara ji mi mawlaana Chérif Mohamed Al Haydara ak mbooleem njaboot gi te dellu siwaat ak ci sunu bind bii nga xam ne moom la ñu doloon ca fan yële weesu muy ci njëlbeenul weeru muharram di weeru tamxarit ñu àndoon ci ak yéen di jàngat xew-xew wala jéy ci xam ne moo gën a mag ci ju xam ne doomu aadama def na ko ndax ñe def la ak defin wa ñe def ñooy ñan ñooy ak nguur buñ nee jamono bañ koy def ñooy jiite jullit ya lan lañuy def mooy wala ci kan lañ ko def mooy ki nga xam ne di kañ wax ne moom moo indi diine jëñ ne ñoom ñoo ko jiite moom la daan teg ci kawam naan e kii dee maa ko bëgg yàlla bëggal ku ko bëgg ki nga xam ne moom sangi muhammadin sallallahu alayhi wa nga xam ne moo gën a tedd ci ku yàlla mësu bind ci adduna ci ñu njëkk ña ba ñu mujj ña moom la daan wax ne man maay moom moom mooy man kooku la ñu rey ñi ko rey comme ni ko waxee waxoon ni ñoom ñoo jiit jullit ya kar ko ci àll ba marloo ko rey ko sos ci diinaay maamam di nga xam ne moo ko taxoon a jóg ndax ba koy ba muy dem waxoon na ko ne dama génn ngir defar lii nga xam ne moom lañu ñu yàq sama diinaay maam ji ñi far ko rey nag far ko dogg li bare bare ñu soppi ko ci jar nañ ci yéen ci yenn yi ñu wees ba ñu wax ne mën nañu wax ne bis boobu bu ñu la ku ñu ci rey man ngay wax ne nit lañu rey wala nga ne nitee lañu rey ndax li sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali sunu borom subhanahu wa taala waxoon ko donc bu doon jukko ju baax ab néeg la yaa ko xëdd wa innaka la ala xuluqin azim mu taxaw ne innama bu xistu li it lu utammima makaarimal axlaaq xaman dañ maa yónni pour ma parachever matal li nga xamante ne moom mooy jikko ju rafet doxalin wu baax léppam di yërmande ma moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali loolu moo taxalu woon ci doomam jooju ci sëtam boobu nga xam ne moom kot longus rek moom la islaam am ci lu mu mën a teg ci table bi ne kawal na ko ci bis bii muy fukkeelu fan ci weeru tamxarit moom rek nag eh, liñ ci wax rek dañ ko génnee même buñ ci jubóowul sax waaye même buñ ci d'accordoon sax ma ngay wax ne dañ koy génne ci ëttub islam waaye duñ ko teg mukk ci ëttub islam loolu ñu da nettali ci yooya nen ne ci islam islam a ko xawle bon islam lam ca xawle neexut loolu rekk la waxoon nañu ci sunu dajee yi wees wala bi wees ne bon nit lañu rey muy imaamuna aba abdillahi alxusaini salawatullahi wa salaamuhu alayhi da jotoon nañu wax lenn ci jikko yi nga xam ne mooy jikko yonent bi mooy jikko yonent mooy jikko imaama yi nga xamante ne làmboo na ko ak yenn wax yi nga xam ne wax na ko day na ci rek ci li ñu tuddoon muy dogu waaw dogu ci defer dogu ci def lu baax ak lum la mën a jaral rek na waaw liñ maam maamam waxoon ba ko yéeféer yi wéree wëree mu ne jant beeg li mu tiim buñ ko tegoon ci sama loxo ndeyjoor weer weeg li mu ñi teg ko ci sama loxo càmmooy mbir mi duma ko ba ak lum ci ci mënta jëlee rek benn ma dee rek wala yàlla mi nga xam ne moom moo ko indi moo ma ko jox daal di ko feeñal moom itam loolu la waxoon la aral mawta illa saada wal xayaata maa zalimina illa barama xool nañ ni kii am am fulla googu am initiative nangoo jóg bañ a xeeb li nga am moins de cent personnes lu matu téeméeri nit fanweeri junni nit ak nangam topp leen waaye du tere la nga xam ne moo ko tax a jóg du geesu ndey jor du geesu càmmooy la ko tax a jóg la koy def loolu nag la maamam waxoon ne adduna buy tukki wóor la ne mu ngi nee du la fi nga yore benn gajj benn ban benn plante benn garab na ko jëmbat bala muy ñëw sa njëriñ la nga fekkee loolu imaam moom bokku dëgg la mu doon doxe lu tax parce que fa ñuy xool njëriñ ñun fañ koy nattee mooy teew mu teew ja te moom dafa jik bindiram li mu ko yàlla bindee nga xay moom mooy alxuraan juy dox dafa yëgoon ne ndeke wa inna daaral axirata lay yal xeewaan dund bi kat ndeke fee la ah alaaxira la du fii fii hors d'œuvre la nag waaw raxasu leen naan leen kii bii daf leen lële añ baa ngi ñëw fii loolu rekk la ma taawoon xalil rek moo tax imaamuna salawatullahi wa salaamuhu alayhi amoon amoon ko moom fii jaral ko woon dara la wuy gërëm ba bàyyam waxoon imirul muminin salawatullahi wa salaamuhu alayhi noonu aduna bu jaraloon yàlla dara lu toll ni laafu yoo ku gëmut yàlla doo ci ñam mais da koo jërut mu doon wax sax adduna bii de salawatullahi wasalaamuhu alayhi booy wut koy e, dag dagaan dagaan seetil keneen waaye man moom rëcc naa la mënoo ci man dara waxoon nañ imaam salawatullahi wa salaamu alayhi dafa jàng jàngale li ñuy tuddee alxurriya mooy la liberté la liberté way juróom wa imaam amirul muminin salaamullahi alayhi di wax ne ba ci jiitu mooy ngi libre ci sa bànneexu bakkan waaw ba du moom fexe ba du moom waaye yaay moom sa bopp nag yaa koy jëmale fa la neex waaye doo seetaan muy la jëmale fu ko neex imaam nekkoon ko xam ne ku jàmbaar la waaye intérêt général jaraloon ko moom mu joxe boppam joxe njabootam ci intérêt personnel kon ku dëggu ku leer ku mën muñ waaye nekk woon itam ku bare yermande ku lewet salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo tax moom imaamuna Xuseyn ibnu Ali salawatullahi wa salaamu alayhi ku bare woon yërmande la koo xam ne comme ni ñu ko waxee woon bëggalul sax noonam ba safaan waxuma la nag ki nga xam ne moom la bokkal même bu ngeen am sax lu ngeen wuute du tooñ kenn lu lor kenn waaw lu lor kenn wan ko fanweeri junni nit wër la sa njaboot ku ne mu ngay yëkkati jaasi wala mu ngay yëkkati xeet nga ne ko bul njëkkee tiire mukk ndax dañuy wax ne Alioune Seynou mii moo njëkkee te loolu njëkk njëkkee xeex duñ ko def kenn moo tax kooku du du def du def du du rey innocent mukk salawatullahi wa salaamuhu alayhi imam salawatullahi wa salaamuhu alayhi comme ni ko waxee ca tabe ga waaye ca bañ nit ki lépp lu koy suufeel wala muy ko gàcceel moom imaam Xuseyn alayhi salaam da doon bañ way juróom wu góor wa amirul muminin salawatullahi wa salaamu alayhi doon la ko wax ne nit ci sa mbokk la benn nga bokk ci géño wala ci meen kom ni nga koy waxee wala ngeen bokk diina wala ngeen bokk nekk nit kenn ku nekk nag ko war a war a mën loolu imaam salaamullahi alayhi da ko benn bis dafa am ab chrétien bu ñëw am aajo ñëw di ko laaj di laaj ba yegg si waaye comme sang ba salawatullahi wa salaamuhu alihi moo waxoon assuaalu zullun walaw an ayna tariq mu ne laaj mom ak kersa la wala ak toroxtaande la boobu même bu dee da ngay laaj ci ne yoonu dëkk sangam fu mu féetee wala yoonu quartier sangam fu mu féetee laaj yombut laaj yombut moo tax imaam mu alxuseynu salawatullahi wa salaamuhu alayhi na nasaraan ba dafa ñëw bokkuñu diina ay dafa ñëw di laaj imaam xool ko xam ne laaj yomb imaam ne ko te mbool nit ñaa ngi toog imaam ne ko ma ma doo jël xaliba gii bind li nga soxla jox ma ko bu ko defee la jëb la la ca la ci njàppandi ma jox la ko nasaraan ba daal di bind la mu soxla ne ko man de diw dama koo yoreel juróomi téeméeri dinaar mu sonnal ma lool nag ca laaj ba moom de moom laa ñëwoon doon bëgg ci ndimbal ba imaam daal di jàngee ci kayit bi mu daal dugg ci néeg ba xool leen di génne junney dinaar maanaam duubal lam ko joxoon ñaari yoon yi lam ko laaj lam ko laaj li ko juróomi téeméer yi mooy genn wàll gi faye ko say bor juróomi téeméer yi ci des nii muy cinq cent yi des nga lijjanti ci say a faj ci say aajo ndax de borkat mbañ da ala baaxut maanaam de gàcce la waaye nee nañu sax imaamuna salawatullahi wa salaamuhu alayhi ba mu ko koy jox daa dugg ca gannaaw ca gannaaw sàkket wax wala ca gannaaw miir ba daal di tàll joxe gannaaw ne le tàllal loxo ba pour waa jël ko ci loxo ba bëggu sax jàkkaar leen moom mu mel nii pour bañ waa ji rus ci jël boobu muy jël may googu nga xam ne moom la ko imaam di may salawatullahi wasalaamu alayhi te manoon nanga caa ñàkk a fekk bu dinaag ñin nga xam ne buñ nee xew la wala tànn biir la xaw ma lañ koy wax wala euh, téléthon la wala téléfoot ak yi genre yooyu ñun ci lañ gën a mën a joxe mbokk mi ku soxla ni fi xam ne bu ko amul coono bu rëy la moom ak njabootam ka ñaari ñun lañ cay man du da bëri waaw bu mbooloo mi teewut imaam nag lu ko génnee ca mbooloo ma nanguwut sax mu wax fa soxlaam bindloo ko ko jox ko duubalul la mu soxla woon waaye joxe ko ko ca gannaaw miir ba bañ naa jàkkaarleeg moom sax pour waa ji gis ko ah, daa da ci am kersa salawatullahi wasalaamu alayhi xoolal ma loolu boobu jikko buñ ko yore woon li fi nekk amul sikki ne doy na waaye problème bi ci ñun la problème bi ci ñun la waaye li fi nekk doy na amirul muminin salawatullahi wasalaamu alayhi da ko daan def wala da ko daan wax gisaan li ñu tuddee ñun ñamu xarte yi ne bàkkaaru ñi am rek de te defuñ ko fañ ko war a def la bàkkaaru ñi am la te defuñ ko fañ ko war a def waaw wa yuhibbu tuhibbuuna al maala xubban jamman bëgg xaalis gu ëpp baaxut bon imaam Xuseynu salawatullahi wa salaamu ci wàllu tabe kenn melu ko woon moo tax daan na ko wax daan wax ne xamal ni sa alal ji du des ak yow doo fi des yow te doo ko dese ba na nga ko jëng ci lekk def ko fa nga ko war a def balaa nga fi jóge ko moom mu dala lekk daan na wax itam ne salawatullahi wasalaamuhu alayhi nee na li nga yore boo ko jëfandikoowul boo ko dugalut fi ko war a dugal dañ ko fi dañ ko fi denc rek bu gannaawee sa gannaaw ñeneen jël ko jëfandikoo ko te yow la ñuy laaj nag waaw yow yaa nekk responsable ba ëllëg buñ koy xisaab yow lañ ca xisaab ndax nee nit ki lu mu def te ju jaarul yoon danañ ko ko régler waaye lu mu def mu baax lu nekk itam nag danañ ko ko fay kon ñun suñu problème li ci gën a bëri ñàkkaa doylu la tax sang bi daan ko wax sallallahu alayhi wa ali alqanaatu kanzun la yafna mais doylu trésor la ndàmb la compte banque la boo xam ne du vide mukk du jeex mukk imam zeynul abidin salawatullahi wasalaamu alayhi di doomu imam xuseynu moom mi nga xam ne moo desoon karbala keroog bisu karbala ba mu feebaroon mu ne zuhdu nekkul doo am dara da lu adduna nekkul doo am dara ay lu adduna mooy fexe ba deferu ba loo am yow yaa ko am waaye du la moom moom waaw bale na ñun suñu problème mooy li ñu yore nga xam ne bërki démboo njaay lañ ko am ndax ñin sax bërki démboo njaay lañ am lañ fi nekk bu ëllëgee ñi bàyyi ko fi wala mu bàyyi ñi fi ñin dañuy fexe ba mu moom ñi buñ ko fi bàyyee ñi rek gis Euh, ëllëg suñu problème te bu rafetu doon du baax bu ñu fi bàyyee ñu torox te pourtant am na liñ ci mënoon a def imaamuna seynu salawatullahi wasalaamu alayhi day wax naan ku régleel nit benn problème yàlla dana régler sa say problème fii ci àdduna ak ci àllaaxira muy wax naan ee eh, xam leen ni dee yàlla day jël mbir jox la ko jël aajooy jaam yi te indil la ko te xéwal yàlla la moomoo ko nee na bu leen fexe nag ba jàpp ne yéen ko moom ba faju leen ci aajoy jaam ya bu ko defee bis mu xëy bàyyi la fa wala nga bàyyi ko loolu moo tax abu abdillahi alxusayn salawatullahi wa salaamuhu ku simple la woon ñu tuddee at tawaadu mooy toroxlu maanaam ku ku réyu doon at tawaadu firiwut ñàkk fayda ndax sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa lu ne may naa ko nit ba mu ñàkkal boppam fayda ay yëg nit nit nit nit lañu ni yow jaamu lañu ni loolu imam Ousseynou salawatullahi wasalaamu alayhi ak gëddëga ak li ci sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wax ci moom ak li ko alquran junj yëpp terewu doon ku suufeel boppam la woon ci kanamu jullit yi ku fonkoon lool di toog ak way ñàkk yi la woon ak ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ak way laago ya wala ñi nga xamante ni xëy na am na lu leen manqué te lan bëgg di toog ak ñoom daan toog ak ñoom da daan lekk ak ñoom da leen daan teral ci lu mu am léeg-léegaan sax mu invité leen yi dem këram mu daal di leen berndeel salawatullahi wasalaamu alayhi bu ñu lekkee ba pare kenn ku nekk mu dugal ci sa poos dara sag leen lool nag comme ni ko bàyyee ba daan defee salawatullahi wasalaamu alayhi nee boo gisee ku la nangul sa mbaax sa li joxe boo gisee ku ko nangul nee sant ko gërëm ko ndax ab yóbbal la boo xam ne yowmal qiyaam da boo demee da ko fa fekk te mën ko koo yóbbul sa bopp ban boo gisee ku ko nangoo yóbbul booy boo nee gërëm ko sant ko neexal ko moom la imaam ali salawatullahi la imaam xuseynu daan def salawatullahi wasalaamu alayhim wuti nag ñin ñi nga xam ne alquran doon wax la tuddu sadaqatikum bil manni wal adha bu leen joxe ba topp pare nag topp ci naan budu doon ak man waaw barki dém njaay budu doon ak man yow nag budu doon ak diw diw moomu nag budu doon ak diw ma duñ ko wéer rek budu doon ak yàlla am moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi nekkoon ku leen bëggoon lool nag imam Zeynul Abidin doom ji mu koy wax boo demee ci say fa sa jaadiya na yàlla na nga may may toog ak wuy ñàkk yi te may ma muy muñ am na si ñoo xam ne ci nit ñi erreur boo def rek erreur bu def rek ñu jàpp ne ñu utal ko euh, fuñ fuñ ko teg moo tax nee nañu may ko muy muñ moom imam Zeynul Abidin salawatullahi wasalaamuhu alayhi wa nag ku dëgg yonent rek nag man ngay juum man ngay tarxe tax ba imam xuseynu salawatullahi alayhi comme ni nga ko waxee kuy simple la woon ku humble la woon ku réyuloon la woon te duhut lu mu doon def deflu waaye noonu la mel noonu la ko yàlla bindee royee ko ci baayam royee ko ci magam royee ko ci maamam di sang sang yi muhammadin alayhi wa roye ko ci fatimatu zahra waaye sotti ko ci doomam yi itam bi nga xam ne ñooy aimatu ahlul bayti salawatullahi wasalaamu alayhim balaa mu oon a xel mu nekk ci séex ba ta mu toogee ci ñi xam ne bu doon sunu classe gi ñu yëkkati sunuy mbagg foofu la leen wane nag ak ak mbokkoo ak ak rafetal ak ak tabe salawatullahi wasalaamu alayhi lam doon wax rek wala la maam Baye ooy juróom doon wax naan man xaasaba al ixwaana ala kulli ku dee koy àndat loo gis ca moom lu di safaan nga bind nee na ëllëg lu doo am xarit waaye dana néew ko defee loolu nekk lu xam ne imaam dañu ko jàngal mu nekk lu am solo am toog ak ñoom te muñ di rafetal di jëllalee ki jéggale lu ko nit def rek mu calcule ko comme na ko bàyyam waxoon amirul muminin ali ibn abi talibin salawatullahi wasalaamu alayhi calcule ko calcule bu baax waaw na nangam la xëy na nangam la xëy na nangam la ba muy juróom-ñaar fukki yoon ci ju rafet léegi sax ñu ne bu fekkee gisut ca benn taawil bu bu baax ca jëfi kooka wala ca waxam ja mu ne ah xëy na man maa comprendre waaye ñuy wax fu matt ga ni telli rek nga ne damm na léeg problème la ragal yàlla lool moom abu abdillahi al xuseynu salawatullahi wa salaamu alayhi moo tax mu ne tedd nga nekkul ci bëri alal wala bëri xam-xam wala bëri rafet ak gudd wala nangam ak nangam waaye tedd nga mu ngi nekk ci at taqwa salawatullahi wa salaamu alayhi moo tax jikkooy bokkoon na ci yi jikkoon di ñaax nit ñi ñu dellu ci seeni responsabilité maamam salawatullahi wa salaamu alayhi wa ala muy sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali wax kenn ku nekk ci yéen responsable la ab sàmm la te kenn ku nekk lañ ko sàmmaloo bis dinañ ko laaj mbaa ruurul moo tax amirul muminin salaamullahi alayhi ali ibnu abi talibin daan wax te loolu moo doon jikkoy imam Huseynu salaamullahi alayhi daan wax ne na ragal yàlla ci dëgg ci jaamam yi na ragal yàlla ci jaamam yi ay loo mën nit loo mënal nit def ko loo ko mën a xañ ko ko wóorut waaw foo doole rek feeñal ko moo xam ci doole la moo xam ci kattan ci eh, jumtukaay la moo xam ci marchandise la moo xam ci lu mu mën a doon wóor eh, ittaqullaha fi ibadi wa biladi eh, ragal réew ragal yàlla ca réew ma wala ci dëkk ba wala ca gox ba nga dëkk Eh, loo ci mën a yàq yàq ko loo ci mën këf këf ko loo ci jékku mu raw koo xam ne du raw war da rawale ku dul raw war da rawale defe naa ne jamono yi ñu nekk war nañu jàngal lu bare bare bare bare te xam ne kenn ku nekk xam ne du raw la alquran waxoon naan wa ma antum bi mujizina fil ardi mun leen rëcc fi ni nii war nañu koy jàngal moo tax imam salawatullahi wa salaamu alayhi imam ali alayhi salaam di wax naan na ngeen xam ne responsable ngeen même ci terrain yi sax seen responsable ngeen ci albiqa tool ya terrain ya euh, pàkk ya yépp nee jur gi daw sax boo defee lu xam ne moo koy gàllankoor moo koy lor lu jaaduwut xamal ni bis booba dina bisu keroog nañ la ko laaj pour wan la rek wan la rek responsabilité bi kii nga xamante ni bu ñu ko toppoon te bañ koo rey konoon tey la ñu alxuraan digoon muy fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan amul sikki ni dara du ñu ci réer imam Huseynu salawatullahi wa salaamu alayhi nekkoon ku fonkoon kàddoom xool leen rek bi fi way juróom mu góor bi jógee ko imaamuna ali ibn abi talibin salawatullahi wa salaamuhu alayhi la nekkoon ca moom taxalu ca magam bu góor ba muy imaamuna alxasanul mujtaba salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu dajeeg maawiya Muawiya jëfandikoo ay pexe yu bare bare bare bare li ñu tuddee ay rusée wala imam ali alayhi salaam di ko tuddee ak seytaana muy jëfi seytaane ñu bare bare bare ci ñi nga xam ne ñoo ko waroon mu jënd leen ña nangoo dem dem ña nangoo wut a dem mu wut ay gaay ñi fexe ba comme li nga xam ne moo xew tey malheureusement yu bëree bëri nga xam ne day am def ay commando wala ñi dem pose bombe wala boobu ñi dem rey ko ca boobu def nañ ko ay attentat yu bëree baree bare ndax toj nañu lupp ba damm nañu tànk ba lu nekk def nañ koy ma Hasan salawatullahi wasalaamu alayhi ba nga xam ne daanaka moom moom bopp moo waxal boppam ni lii nekk ci jinne bu ma ko entretenirul bu ma leen aarul wacc leen pour ñi mën a jàngalewaat pour gën a am am beneen mbooloo moo xam ne mooy dellu jógaat bu boobaa diine ji dootu du am kenn ku ko fi waxal te dara mu daal di signé signé pacte boobu nga xamante moom la signé woon ak Maawiya waaye Maawiya bañ ko signé ba mu delluwaatee dëkkam ci la jël pakk ba teg ko ci tànkam dëgg-dëggaat ko ne man lii sama yoon nekku ci waaye comme waxoon na ko ak imam xasan imam xasan delluwaat madina jàngale yi moom ak imam xuseyn alayhi salaam ba fi imam xasan jógee ko ñu boole ko soxnaam sa mu daal di ko empoisonné mu ne ah imam xuseyn ne comme dañoo waxoon ne bu fekkente ne ndax Eh, lii ñi wax bu fi imam Ousseynou bu ma fi imam Hassan jógee ko te Maawiya jógee ko fi dañuy continuer ba ba Maawiya bu fi jógee ko imam Ousseynou moom moo war a toog mu respecté boobu même bu fekkee ne xam na ne du ko def inna al ahda kaana masulan li nga signé wante daal da la koy laaj xoolal rek ni mu meloon bokk na ci liñ mën ci moom mbokk yi mooy imaam xasan salawatullahi wa salaamuhu alayhi ni mu respecté woon magam di imaam imaam Huseyn imaam xasan sangib wa ali mooy wax naan al waladul kabir bi manzilatil abbi nee na taaw kër mooy bàyyi ci kër ga dañ ko jàppee ni comme baay tax taawu kër ku am sa taawu kër naan sa way jur nekkatu fa nga naan bu fi sama way jur nekkoon tey te taaw ba nekk fa defaloo ko ko waaw say waxi bopp la rek nag waaw say waxi bopp la rek waaye sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali li mu jàngale woon mooy alwaladul kabir bi man silatil abdu loolu nag imaam Xuseynu salawatullahi wasalaamu alayhi noonu la doon tarbiyoo imaam Xasan salawatullahi wasalaamu alayhi lu mu yëkkati rek mu nga ca kanamam ak martaba bi mu am bokk na ci itam li ñu mën a jàngee ci imaam Xuseynu salawatullahi wasalaamu alayhi lu xam ne war naa mën a defar sunu biir mooy ni mu toppe woon imaam Xasan salaamullahi alayhi noonu la ko rakkee toppe woon Abbas ak mbokk ak rakk ya mais xoolal mbokk yi misaal yaayu abbas muy fatima mi nga xam ne moo ñëwoon gannaaw fatimatu zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha nekkoon kër imam huseynu salawatullahi wa salaamu alayhi ah waaye bi mu ñëwee tudd fatima te fekk ne fatimatu zahra moo ko fi jiitu woon di bàyyi asan ak useynu mu ne man mukk duma seetaan ñii ma woowee Fatima bu ko defee bis bu nekk may fàttalil xale yi seen seen yaay bu ko defee loolu mën naa dem ba jur métitu xol ci ñoom duma ko def mukk bu wutal ma weneen tur ne ko imaam ma weneen tur imaam tuddee ko umul baniin yaayu xale yi xoolal ma Fatima rek Fatima ma Fatima alkalabiya mu jur abbas ñu ko tuddee abul fadl xamaru bani hashim ak tur yu bare bare bare li may ca Karbala tey da nga gis ba na mu mel moo yenu woon ndox ma jëmale ko ci imam Huseynu salawatullahi wasalaamu alayhi gaa ya daggale dagg ko dagg ñaari ñaari loxo ya waaye terewul boo demee tey ca Karbala fa ñu daggee woon kii ba ñu ngi ko defar foo xam ne ab bërëbu ziyaare kaay la mooy magu Abdallah mooy magu Jaxfar mooy magu Ousmane ñi nga xam ne ñoom ñëpp ca Karbala foofu la def waaye ni mu toppee woon magam moom Abbas noonu la ni yaayam amul ban yin toppee woon Fatimatu Zahra te fekkante wuñ ci jamono mu fonk ko lool gën fonk ay doomam sax doom doomi Fatima Zahra salaamullahi alayha moom la umul ñoom la umul banil gënoon a fonk ci ay doomi boppam bi muy Abbas ak ñi def fonk lool lool waaye topp loo leen seen mag ba ñu nekk ay soldaaram yoo xamante ni fu mu leen joxoñ rek foofu ñu jëm nekk ay soldaaram nekk ay généraux am moo tax itam ñoom ñëpp dañoo faatu ca bala njëkk balaa imam Huseynu salawatullahi wasalaamu alayhi di shahid waaye ba ñu dellu si waatee Medina moom Fatima da doon laajte bu laajtee rek ne ana Huseynu ñi naan ko kan jaxfar ngay wax di tudd doom ya di tudd doom yi koo ci wax mu daal di yuuxu daal di jël bi loxoom so teg ci kaw boppam ne laaju ma moom Ousseynou laay laaj salawatullahi wasalaamu alayhi nga xam ne bu ñëpp faatoo ta da kenn desut ku dul Ousseynou moom xelam dal na pour wan la rek ni mu ko bëggee woon ndax moom mbindaanu Fatimatu Zahra la woon waaye mosu koy du ko fiiri mukk nag noonu la taxawe woon doom ya salawatullahi wa salaamuhu alayhim abul fadli moom nga xam ne moom mooy seen mag ñoom ñu déggoo woon lool lu am solo la ne ñu déggoo ñu bokk ndey ñu bokk baay ñu bokk ndey ak baay nañu déggoo bu fekkente ne ay taalibe yi Xuseynu ñu salawatullahi wa salaamuhu waaye ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy moo xam ñi nga fa wala nekk fa nañu rafetal jëm ci ñoom bu fekkee ñi nga fa nañu rafetal seen diggante ñu fa nekkul ñoom ñaar ñooy sëy nañu rafetal jëm ca doomi ña fa nekk ka ka fa jógee ko comme ni nga xam ne moom la Fatima salawatullahi wasalaamu alayha defoon salaa Fatima bani umul banin bëgg lool Fatima ta Zahra du ko fiiri mukk nag waaw du ko fiiri mukk waaye bëggoon ko lool loola feeñ ca doom ya ba nga xamante ne abbas faatu abbas shahid moo ko gënal fuuf imam Huseyn salawatullahi wasalaamu alayhi di shahid moo tax bi imam Huseyn salaamullahi alayhi jógee ko fi bi mu shahidee fële ca Karbala moom Fatima kala eh, Fatima eh, eh, al Kalabiya wala umul banin mu yaayu abbas ak rakkam yooyu wax nañu ne ci néeg bu amul dara bu amul xëdd maanaam ci kaw jant bi ak ci kaw neige bi wala ci kaw euh, ci kaw euh, euh, ji bi taw bi ci la daan taw ba un an la ci am ci gannaaw gi at la at la ci topp gannaaw gi yoo xam ni dara tiimut ko moom Fatima Zahra Fatima Alkalabiya moom umul baniin ridwanullahi alayha loolu war nañu jàngal war nañu jàngal ñi bokk ndey ñi bokk baay ñi bokk jëkkër ñi bokk kër kenn ku nekk da wax te jëf lu baax sa digganteeg sa morom loolu jàng war nañ ko jàng loolu boo demee tey ba léegi Fatima umul banin ca Kuufa noonu nga fay fekkee néegam ba ba léegi mu nga fa salawatullahi wasalaamuhu alayhim kon imam Xuseyn nun noonu la meloon noonu la mënoon a sante sunu borom subhanahu wa taala bëggee ko jaamu yàlla ba daan wax naan sax yooyu sama borom man nu ma lay jaamoo nu ma lay sante yow ndax man sant bu ma la sant sant booba sax ma sant la noonu loolu sax beneen sant dama caa warati ba moo tax sax sama sant du ma rek wuti nag tey nga xam ni tey ñun baaxul rek waaw el baaxul rek la ñuy def néew na bu ñu waxee ne baax na ñu xoolee tey kenn ku nekk bu xooloon boppam wala mu xool li ko wër delloowaat bëtam ci gannaaw fukki at wala ñaar fukki at ci gannaaw dana yëg ne démb wuti nag tey tey gën nay deferu par rapport ak ni nga xam ne ñu rembalul démb waaye léegi idée politique ak ay idéologie yu kenn xamut tax na ba nga xam ne dañuy muur suñu diggante ak suñu borom mi nga xam ne moom la ñu waroon a sant ndax moom moo wax ne wala tansawul fadla baynakum wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis shakirina lu ko ñaari yaat ñaari yoon la ko alquran wax yoo xam ne yëpp day fan di sant waaye ñun du ñu sant la demee ci nitu yàlla yi ñaare même bu ñu amee safaan ba sax dañuy sant yàlla ay ñun moom du ñu sant baaxul rek waaw baaxul rek te nag na gën nay baax itam nag waaw kon nañu jéggi sunu clivage nañu jéggi sunu eh, eh, kiiraayu eh, parti sunu kiiraayu politique sunu kiiraayu mbo wala fii laa bokk wala la jëlale laa bokk suñu kiiraay yi nga xamante ne mooy kiir suñu diggante ak gis suñu xéwali borom yi ba ñu sant ko ndax bu ñu ko deful nga yëg ni mën na fee de gàññ waaye duñ ko duñ ko xewoo mbokk yi bu ñu xoolaatee jamono ni mu mel war nañu delloowaat ñin suñu bopp ñu xalaataat ci mbir mi lu mu demee ndax kat li ñu alxuraan di nettali lu xam ne ay xeet jaaroon nañ fi am nu ñu defee nu jekkut yàlla indi leen loo xam ne lu xewal ñun fi mu ne loolu yëpp ngi këpp ci suñ kaw waaye ku nekk ci ñun dafa jàpp ne morom kala kenn du jàpp ne mbir mi xëy na man la waaye ku ne day jàpp ne diw la waaye du du du du du man mbokk yi bu ñu xoolee adduna bi ni mu dawee fi mu ne ni mu demee bu dee inondation yi muy ay mbënd dëkk yi nga xam ne demoon nañ ba jàpp ne jekku nañu doxalinu adduna tey foofu la mbënd mi di dem di fa rey ay nit yu dul jeex te duut benn bërëb waaye bërëb yu baree baree la ci adduna bi di sotteeku te mënuñu ci dara lépp lu ñu préparé woon pour ne loolu bu ñëwee loola mbënn ma jéggi na ko dafa rey ay téeméeri nit yoo xamante ne dara lañ ci mënut te ñun ñooñu lañ doon xool mbët ma loolu luñ ci xoolam boo ko bàyyee ko tremblement de terre yi suuf yi da yëngatu ay àll yoo xamante ne dafa euh, euh, verte yaakaaroon nañ ne wax dëgg yàlla dara mënu koy lakk muy lakk ay yoo xam ne foo fay feneen fa ñëw te loolu itam daj adduna bi continent yi yëpp moo xam Amérique la moo xam Europe la moo xam Asie la moo xam Afrique la partout di lakk ngelaw yi di dajji garab yéeka di daane tabax yi ay mbindeef yàlla yoo xam ne kenn mënul leen a gis lañ la jël adduna bi fit foo ko kar rek mu dellu génnaat ñu naan vari la wala bii la wala bële la feebar yi daj këpp dee gi bare lool te kenn mënu ci dara ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul yool marchandise mi di gën a sees te pourtant bare na ak yeneen ak yeneen yu dul yooyu yooyu bu amaan islam moom lam ñuy sant mooy ñi julli toroxlul sunu borom subhanahu wa taala jéggulu ko walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard bu ñu gëmoon yàlla ragal sunu borom subhaanahu wa taala man yàlla ubbi leen wërsëg bunt yi ci kaw ci suuf waaye barakaat yi la wax waaw ñun li ñu am même bu baree barkewut loolu yëpp nag au lieu ñu dellu ci suñu borom jéggul ko au lieu ñu jég jég gi suñuy le bopp suñu ana ananiya suñuy gëdd waaye xoolaat ci sunu borom subhanahu wa taala yëg ni ñun ñëpp de fuqara ilallah la ñun ñëpp dañoo soxlawoo sunu borom subhanahu wa lii di am xëy na ñun ñoo ko tooñ moo tax mu am ñu yëglu delluwaat xoolaat sunu toogaay defaraat ko ba toppaat li ngi sunu borom subhanahu wa taala wax te bàyyi xiiroo ba nga kenn ku nekk jàpp ne sa morom la kenn ku nekk décider pour defer te ne dootuma yàq mukk li ma jago woon sama diggante ak sama borom sama diggante ak sama morom danaa ko deferaat te dootuma ci def mukk lu bon mukk moo xam ci wax la wala ci jëf laa barara wala biraar waaye nekk fi rek kenn ku nekk di tuumal sa morom alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir wóorul te nag mbokk yi tooñ wëliyu wax nañ ko ci sunu dajee bi wees léegi bu nit amaan yenn yi dañuy wax ne dafa tooñ wëliyu ñun adduna bi mbaalul dañoo tooñaat wëliyu yàgg nañ koo def bon nañu jégg ñu mbokk ñun ñëpp jégglu sunu borom subhanahu wa taala jéggi sunu bopp delluwaat nekk ay jàmm waaye delluwaat nekk ay mbindeef yoo xamante ne yàlla dañuy jagleel lu mu jagleelul kenn da wax ko ci alquran wa laqad karamna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila ko defee loolu ñu mérité ko baqel di defar te bu ñu yàq zaaral fasaadu fi lbarri walbahr bu leen tuumaal kenn waaye xam leen ne bi ma kasabat ay dinaas suuf ak bu yàqoo bu leen joxoñ kenn joxoñ leen seen bopp jëkk waaye toog fi rek kenn ku nekk ne sa moroom la kenn ku nekk da kiyét sa moroom te du ñu xoolaat suñu bopp mukk delluwaat ci suñu boroom ma ne lu xew ci suñu lu ñu dal lu nekk nañu xam ne ñun ñoo ko def suñu bopp suñu borom subhanahu wa taala wàccoon ak ñin defel na deferal defer nañu deferal nañu jox nañu lu ñu jëfandikoo jox ñu xel moo xamante ne mën nañ caa jaaree ba nga xam ne dina dana ñu rafetal waaye indil ñu ay yonent yoo xam ne bu ñu leen toppee du ñu juum indil ñu ay imaam yoo xam ne ñoo ñuy leeral loola nga xam ne moom la yonent indi woon ba ci mujj gën caa baax gën caa euh, màgg mooy sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mi nga xam ne dara desewu ko ndax noonu na a yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan lañ ko joxoon yàlla teg ko ci kaw a'immatu al bayti salawatullahi wa salaamu alayhim ñi nga ne ñoom la yàlla jox xam-xam ba te kat wax nañu ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ndax ki xam ak ki xamul danañ yem afa man yahdi ila alxaq aqu an aman laa yahdi ila an yuhuda waaye fama lakum kayfa tahkumuun la laajte ji door a xamle ma doo ñëw ci ki xam rek mu xamal la directement nga demam ban yàlla wàccoon ak ñin taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan fadilu ba'di kitaballahi wa itrati ahli bayti salawatullahi wa salaamu alayhim ban imaam Ousseynou kenn ci ñooñu la woon ñëw na jëf na jàng naa jàngale na xamle na wane na ci façon bu nekk ñi nag ñoo ko war a jàngaat kenn ku nekk ci jamono tey bi dañoo war a jàngaat imaam Ousseynou salawatullahi wa salaamu alayhi pour war koo ci sunu biir ak ci sunu bitim ak sunu yëngati yu mag yi ak yu yu ndaw yi pour ñu delluwaat nekk ci yoon bi nga xamante ne moom moo ko taxoon a jóg talabil islah muy defar li nga xam ne moo yàqu woon bon li yàqu ci ñun tey buñ ko toppee incha allahu lépp dana dellu jaaraat ci yoon buñ ko defuti nag moom dana indi moro boromam moromam dana indi eh, bosa waayam muy imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif mu defar ko bu ñu neexee bu ñu naqaree ku nangu topp mu de jàmm ku nangu topp itam ñi defar ko ci sa kaw rek bu ko defee nga am mbugalam addina ak àllaaxir yal nañu yàlla ci musul ci loolu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad salaamu alayka ya mawlaaya ya aba abdillah wa ala al arwaahi allati xallat bi finaayik alaykum minni salaamullahi abadan ma baqituhu baqiya leylu wa nahar wala jaalahu llahu aaxira al ahdi minni li ziyaratikum assalaamu ala al xusayn wa ala ali ibn al xusayn wa ala awlaadi al xusayn wa ala ashaabi al xusayn اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أسبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم قد بين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم أشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك allahuma gayir suua xaalina bi xusni xaalika allahuma qdi ana dayna wa aghnina min alfaqri innaka ala kulli cheyin qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salli allahuma ala muhammadin wa ali muhammad bu doon fii ci seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye fii ci rajo Mousdayri FM 93 point 2 di kaddu njabootu yonent bi 93 point 8 di Zahra FM te Kolda ak li ko wër ak ci mbooleem médium ak réseaux sociaux yi ci télévision numérique bu euh, Ahlul Bayti TV ak ci mbooleem yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon di jégalu bu baax a baax a baax incha allahu dinañu dellu siwaat encore ci beneen bind balaa boobu ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu